et ravi de vous retrouver mesdames messieurs di leen di euh, nuyu ku ci nekk sa tur di leen dalal jàmm ci seen émission seen show fas yéene waxtaanee comme ni ñu koy defee à chaque fois bu waxtu wi jotee lépp lu ñeel wàllub actualité tey li ñuy waxtaanee di euh, dialogue national bi ak itam euh, front de résistance nationale bi ñu mettre à l'épreuve donc laaj la bu ñu taxaw samp dinañ ci jéem a tontu incha allah ci anam bu yaatu dalal ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci bu baax baax bokk na ci Mokhtar Souron di bu ñu ngi leen dalal suñu plateau. ñu ngi di sant. ñu uh-huh. ngi waale bu baax. ndax uh, suñu xarit suñu rakk la. Uh, gis nañu depuis un certain temps amul dal ci kaw depuis d'ailleurs les présidentielles. Euh, nous lui apportons notre solidarité notre soutien. merci. Euh, Merci beaucoup merci d'être là également. Merci. À côté de lui, on a Hassan Samb di journaliste politique waaye itam di directeur de publication bu Rewmi Quotidien Hassan Samb ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay di aujourd'hui partagé show c'est toujours un plaisir de partager avec vous et surtout avec euh, monsieur Souran voilà j'espère que débat bi dina instructif. incha allah on l'espère également <coughs> di euh, nuyu itam ndey di ndaw ak ndey xadi camtaal bi ñu nar a ondal ci waxtaan biy door léegi léegi incha allah ñu euh, gis ni que PDS retiré nañu ci front bi jaarale ko ci ab communiqué bu euh, maître Abdoulaye Wade mu mais mu bàyyi ay accusation ci boobu les communiqué te yéen ñi nekk ci front bi tey nan ngeen ko jàngate maa ngi maa ngi lay kon ni mu ko defee léegi. Mhm. Euh, dañ ci am mbet mbetteel lool. ndax euh, amul dara lu wane woon ni foofu lañ jëmoon. Euh, daje bi ñu mujj def yàggul. ça fait de dix jour Bara Gaye moo fa toogaloon PDS. bi mu ñëwee waxtaan bu dal la ñu waxtaan ci suñu biir. ñu doon waxtaan ci wàllu. commission politique euh, mu indi ci xalaatam ndax moom am na expérience bu baax ci wàllu élection euh, kon PDS ñu wax ni am na lu leen metti ci ni mbir muy doxe mhm. musul am euh, kon bu ñu gisee communiqué boo xam ni dañ ko dégg ci presse bi danañu metti dañ ci am mbetteel mais bëggewuñu ko noonu aussi parce que bu doon suñu sago PDS dafa am lu mu représenté ci réew mi mhm. euh, front bi mun naa ni PDS membre fondateur la ci suñuy fond fondé front bi joué ci rôle bu important ndax marché yu ñu doon def sur le plan logistique ak lépp militant PDS ak responsable PDS ils étaient au premier plan euh, boo seetloo coalition yu fi am yëpp PDS daf ci bokk daf ci dugal loxo muy avant alternance 2000 et après bi ñu perdre pouvoir PDS a toujours été ak côté de l'opposition et des partis de l'opposition kon ñun mbettal lañ ci am euh, lire nañu aussi communiqué bi waaye dama bëgg wax rek ni man tuuti naa lool pour tontonte ak président Ablaye Wade président Ablaye Wade référence la ci man dañu nekk ndaw di ko topp man 87 euh, bokkoon naa ci njiite grève étudiants yi fii la jeunesse malsaine avec le président Diouf ñun ñii la woon avec les Talla Sylla El euh, Hadj Kassé et cetera on a joué les premiers rôles et Ablaye Wade référence la woon ci ñun. Mm-hmm. donc du ma ko tontu mag la mag buur la euh, xëy na kay danaa indi ay leeral rek leeral ndax président Ablaye Wade référence la sur le plan aussi bien Sénégal que sur le plan africain et sur le plan mondial euh, man dama jàpp ni parce que président Wade mag la te dootul ñëw donc dafa am dafa yeble dañ koy wax. dañ jàpp ni dañ ko juumloo ndax boo gisee front bi boo gisee communiqué bi dafa am dañ ni dafa am ñu bokk ci front bi dama bëgg waxee que ni front bi cinquante y a plus de cinquante partis et organisations mm-hmm. donc Bougane mm-hmm. qui joue un rôle extrêmement important mm-hmm. euh, suñu mode de prise de décision du vote du dara dañuy consensus dañuy waxtaan bu fekkee ni ñun ñëpp jubóo nañ ñu def bu ñu jubóowul ñu teg ko ci suuf bu ngeen xoolee élection présidentielle ñenti candidat amoon na ci fond bi PDS ni ñoom demuñu bu ngeen seetloo ku ne da nga dem jàppale ki ngay jàppale ba élection yi joxe ñu dellu si waat àndaat mhm. dialogue politique beeg dialogue national bi noonu la demee consensus dafa am ci dialogue politique bi ñun ñëpp dañu d'accord Ousmane sonk tout le monde Idrissa Seck ñëpp dañu d'accord ni dialogue politique moom nañ dem waxtaan ci mu doon consensus bu dee dialogue national bi du consensus dialogue national bi duñu ko discuter ci front bi à partir du moment où amul consensus chaque parti est libre nu la la ñuy fonctionner. Mhm. amuñu également une structuration boo xam ni diw dafa jiite diw topp ci. Mhm. man damay coordonner simplement maa ci gën a tuuti maanaam. Euh, corona bi du lenn lu mooy bu réunion amee ma convoqué ko présider réunion yi bu consent fexe ba consensus am bu consensus amee ma fexe ba ñu appliqué donc noonu la ñuy fonctionner donc mhm. amul groupe boo xam ni mun na fexe ba ñu def lu neexul kenn aujourd'hui li ñu war a considérer mooy chef de partie bu nekk général mhm. bu ngeen bu ñu toogee dañuy waxtaan en toute responsabilité dañuy waxtaan ah. ku ne wax sa xalaat bu ñu mënee juboo ci def dara ñu def ko bu ñu mënul juboo ci def dara ku nekk xool naka ngay taxawee. d'accord di Mbette. Khady ma lay nuyu bu baax. ñu lay fay waa plateau bi ak ñi seetaan ñëpp. alors wax ko ko ci sa njëlbéenu wax que yéen euh, dem ko problème mooy Oumar Sarr nga xam ne dafa am ak jafe te ba pare yéen waa front bi ngeen maintenu ko ci biir. xam nga loolu euh, dama jékki-jékki. Euh, président euh, Wade bind bind lettre front bi ni changé na Omar Sarr nañu wax ñan ñoo ko représenté à l'époque ñaari tur la ma waxoon ma ma bind ko wan ko ni ko front bi kat day am kenn ku jiitu am keneen koo xam ni bu fa newul kooku mun ko toogal suppléant suppléant euh, Bara bind ma ci bind ma waa président Wade bind ma jaarale ko ci Bara Gaye Bara ni ma tànn nañ moom mooy moom mooy euh, titulaire bi euh, Doudou Wade mooy suppléant bi donc ñu commencé réunion bu amee ñu woo Bara Gaye yëgal ko it euh, Doudou Wade pour au cas où Bara bu ñëwul moom mu mun a ñëw. mais terewul ba tey Omar Sarr mi ngi des di mener ay activités ci biir front bi. moom lay leeral noonu. Omar bi mu bi bi problème yi amee dafa bind lettre front bi au nom de suqali soppi ni dama bëgg adhérer ci front bi bu ko defee conférence des leaders parce que loolu mooy procédure bi boo bindee day conférence des leaders ñëpp dañuy toog ñu ni nan la ñuy def diw kat bind na biñ ko examiner foofu ci front bi ñëpp dañu d'accord ci ne dañ ko war admettre xam nga lu tax front bi du ay parti politique rek dafa am ay association am ay personnalités indépendante am ay partis politiques am na ci biir front bi ay PDS yoo xam ni seen mouvement lañ fa duggee PDS lañ dañu amee mouvement wala ñu amee syndicat dugg fa ñu nangu leen kon bu fekkee ni nangu nañ koo xam ni mi ngi PDS wala mi ngi feneen même bu fekkee ni nekk na ci parti Amar Sarr ñëw moo xam PDS la moo xam lu mun ti doon amee mouvement am ni dama bëgg dugg boo ko xañee da ngay def rupture d'égalité parce que du ñu admettre nit sur la base de da nga bokk ci parti diw wala da nga bokk ci parti diw ay association la ñuy admettre ak ay parti politique ak ay personalité kon bi ñu koy étudier souverainement du du du kenn moo ko décider ah c'est le front d'accord ñoo décider mm-hmm. que ni Omar Sarr mm-hmm. suqali soppi dañ ko admettre ci fond bi te loolu ñëpp d'accord ci parce que loolu dafa am jurisprudence dafa dañ ko def defaat ko defaat ko y a beaucoup de PDS hein dans le front te loolu il ñu leeral ko bare na ay PDS yoo xam ne ñu ngi ci front bi yore seen ay mouvement ñu accepté leen. d' accord front de résistance nationale bi muy juddu daanaka jàkkaarloog nguur gi moo taxoon mais tey bu ñu gisee seen euh, doxalin yi am ci biir euh, si fond bi hmm. est-ce que tey euh, mënuñu wax ni finalement le problème c'est vous ban doxalin gis nañu barki moom Ndiaye Mamadou Lamine jàlloo bind wax ni dialogue bi mu ngi jur presque 10 millions Mamadou de Decroix itam bokk ci bile front wax tontu ko ci tontu boo xamante ne nii déggoowuñ ci ay kàddu ministre Bamba Ndiaye tamit ci même chose donc mu mel ni finalement ñoom waa front bi ci biir bi ñoom ñooy defante xam nga loolu man dama ko jaawalu lool ndax ñun waruñu nekk dóorante ci suñu biir benn adversaire la ñu am c'est le président Macky Sall mooy ñu fexe ba mu jóge fi xam nga tey di jiñ niw di wax na nangam di wax na nangam loolu mooy renforcer opposition euh, Mamadou Lamine Diallo di sama maa ngi koy nuyu au passage euh, sama mag la sama xarit la ma fonk lool xalaatam la joxe man du ma ko tontu aussi moom jamais du ma ko def ci plateau euh, xalaatam la joxe ci daf parce que dafa am xalaatam moom ci jaloog bi ñeneen am xal seen xalaat parce que amuñu consensus sur le dialogue national dafa am ñu ni bu ñu dialogué bu ñu demee dialogue bi Macky Sall la ñuy dimbali président Macky Sall la ñuy dimbali am na ñu xalaate noonu mais am na ñu xalaatewul noonu. am na ñu ni mais bu ñu demee ci commission politique di fa waxtaan ci wàllu élection te commission politique bokk ci jaloog national ñun politiciens lan la ñuy reprocher élection rek moo ñu intéressé bés bu ne yéen ngeen wax ko bés bu ne ma dégg ngeen wax ko kon bu amee yeneen pàcc yoo xam ne dañ fay waxtaane koom-koom dañ fay waxtaane mbiru économie mbiru social mbiru environnement mais syndicat yi teew fa patronat ba teew fa société civile ba teew fa ñu ne non ñun demuñu ci loolu am na ñu ni mais loolu nit ñi duñ ko comprendre la preuve li leen yitteel mooy yokk nañ njëkki ñokk nañ nàngam donc loolu est-ce que dañuy toog di ko setaan Mamadou Lamine Diallo évidemment dafa am xalaatam keneen am xalaatam keneen am xalaatam xam lan moo garaaw mooy ni man sama xalaat moo jub yéen dangeen ngeen di collaborer ndàngam ak ndàngam loolu baaxul te loolu waruñu ko def. maanaam ku nekk da nga war a défendre ses te ku nekk ñu respecter li tax yow nga def loolu. man jàpp naa ne ña dem ca jaloo ña demul gënuñu valeur ëpp ñu patriotisme gënuñu bëgg xeex que ña dem. ña dem dañu c'est ci wàllu politique lañ ko xalaatee. jàpp ni stratégiquement li gën mooy ñu dem ca waxtaan waaye du caaginu dañu dem pour jàppale ji Macky Sall loolu gisuñu ko kenn waxu ko donc loolu aussi il faut que ñu leeral ko donc problème mu Omar Sarr bi mu posé woon nan lañ ko réglé te làpp lii lay wan ni réglé nañ ko mooy après ça le PDS ñëw na participer ci suñu ñoo donc loolu mënul doon problème mm-hmm. maintenant évidemment am na loo xam ni moom dañ ko war a bàyyi mooy dégg naa ni diw kat a wax ak diw dégg naa ni diw a ngi defante diw mais écoutez président Ablaye Wade dafa xëy dajeeg président Macky Sall Massalikul Jinaan ñu nuyoonte saafonte président Macky Sall taal oto dem déposé ko këram président Ablaye Wade secrétaire général du PDS taal otoom dem seeti président Macky Sall mm-hmm. waaw. tey jii imagine leen Idrissa Seck defoon ko imagine leen Pape Diop def ko képp ku ko defoon ci opposition bi dàq nañ la coow topp na la kon li ma bëgg wax mooy te terewul amul kenn ku ngeen dégg bi loolu amee mu ni ñoom bokkuñu ci opposition. Uh-huh. kan moo ni PDS du bokkul ci opposition te pourtant dem nañ toog ak président Macky Sall. dëgg la ci sa njëlbeen wax. ginnaaw bi ma leen nuyoo. <laughs> ci sa njëlbeen wax wax nga ne euh, président Abdoulaye Wade doo tontonteeg moom ndaxte. non euh, màggatum foo fokk fekk dese na ko ngalaju yow nga ragal ngalaju li laal la mais euh, tey jii ndax yéen. bu demee moom ba gis ni am na ñu ci xaw a déteindre ci pouvoir bi ndax jotul yéen ngeen def potum biir néeg boo xamante ni di ngeen tëral seen sartu kuréel ni lii ak lii la balaa kenn di te di wax loo xamante ni c'est pour l'intérêt euh, askan wi yëpp la ñu diisonte ko suñu biir soog ko jénne non man dama bëgg ñu wax ma lan mooy mhm. déteindre ci pouvoir ak pouvoir mhm. xam nga non xam nga loolu moom mooy li ma la wax léegi mhm. xam nga wax sa wax dafa yomb diw gis naa ko muy wax ak diw gis naa ko muy dégganteeg diw gis naa ko muy defanteeg diw xam nga loolu du argument xam nga man tant que nit mu ngi jàpp ni mi ngi bokk ci front bi la ñu taxoon ñu booloo muy plateforme bi dañu d'accord woon ci plateforme ànd nañ xeex ci démocratie nañ xeex ci liberté nañ xeex ci ressources naturelles nañ xeex ci problèmes sociaux yi yooyu moo ñu boole ñu ni nag xeex bi mooy lu ñu d'accord nañ ko àndandoo xeex lu ñu d'accordal ku nekk dox dem dem dox sa dox waaw loolu est-ce que dafa am kenn ku taxaw ni man àndatuma ci nit bu fekkee ni mi ngi ci biir loolu boo wootee réunion mu ñëw boo demee marche mu ànd ak yow ci marche boo laajee contribution mu joxe contribution mi ngi jàkkaarloog Macky Sall gisuñu ko mu dem foofu gisuñu ko mu défendre ko gisuñu mu nekk ci parteem gisuñu mu ànd àndandoog moom waaw kooku dañu naan daal dégg nañ ni daal moom daal affaire bi leerul donc non mënuñu fonctionner noonu xam nga nous sommes des responsables ni ñu mën a fonctionner mooy gis lu leer lu concret koo xam ni ci front bi am na ñoo xam ne dañu xëy suba teel dem. front bi du force. opposition du force dëgg lu ma bëgg a wax mooy yéen opposition puso ko pour ñu mën a ñaw il faut ñu ànd. mais bu fekkee ni yéen opposition ci seen biir ku ci nekk da ngeen ne yéen cause bi ngeen di défendre ba pare ci biir façon bi ngeen di défendre boobu cause ku ci nekk bëgg a am ponk bu mu ko doxalee ndax parfois du indi ay réero wala ngeen ni ngeen ni. dal ban ponk ñun dañ jàpp ni ñaari tànk la ñu war a taxawee. Mhm. ban tànk bi mooy xeex. Mhm. ndax foog nga xeex. Mhm. tey amul benn xeex boo xam ni am na fi ci réew mi te front bi ak partie yi nekk ci front bi bokkuñu ci. dañ koy organiser. waaw waaye ñu ngi koy def bu leen fàttali dañu génn ci ay élection dafa metti pendant un mois ñu nekk ci àll bi daw amoon ay candidats bu buñ ci génnee mu demee ni mu demee mais géej sax xanaa dana dëkk jékki ni tekk dañu mun tout le rek ay vague ay vague ay vague léeg-léeg dañu naan tekk xool fan la ñuy teg suñu tànk ñu nee tekk dañ ni opposition bi yëpp dafa àndandoo ñu ni attention. il faut que li amoon bañati am on est plus près dem ci ay élection yoo xam ni bu ñu joxee résultat du ñu xam fan la jóge donc nañ leen waxtaan ci affaire code électoral évaluer processus pour élection présidentielle xool li xew lan la loolu ñun ñëpp ñu d'accord ci ñaareel ba ñu ni fépp fu xeex social am fu jafe-jafe am front bi dana taxaw aar li ñu bokk front bi dafa taxaw euh, ñoo lànk bërki démb jàpp naa ni fond bi li mu def ci marché boobu amul kenn ku ko ci def ci wàllu appui ci wàllu jàpp ci wàllu on les a rencontrés on a discuté il y a eu de vues kon benn tànk bi moom ñu ngi ci taxaw mooy nañu war a xeexe ñu ngi xeex ba tey ña beneen tànk bi mooy gis nga xam nga nee naa la am na ñoo xam dañ nañ leen waxtaan politique kon waxtaan kenn dàq ko dafa am nag ñu ni bu ñu waxtaanee politique yeneen ponk waxtaan wi ñun daañ ci dem est-ce que loolu war na indi problème ci suñu biir waaw wala déet ku nekk dangay def li doy sa xel waaye nag li garaaw mooy man lii laay def te keneen ku def leneen ma dal ci sa kaw loolu c'est de l'intolérance et loolu baaxul nit da ngay wax sa wax bàyyi jàmbur mu wax waxam bu fekkee ni d'accord ngeen ci dara ngeen àndandoo def ko bu ngeen d'accordul yow def nga li la doy mooy man demuma jàpp naa ne dama war a génn ci mbedd mi loolu rek laa war a def waruma wax waruma waxtaan te terewul yow même bi nga naan waruma waxtaan yaa ngay waxtaan ci code électoral bi. Mm-hmm. kan moo d'accord tey ci ni waruñu waxtaan ci code électoral bi amul kenn ku ci d'accordul. dinañ ñëw foofu sax ci kanam incha allah en attendant ñu dem ci euh, Assane Samb est-ce que tey retrait bu parti démocratique sénégalais c'était pas euh, prévisible bu ñu gisee ni que libéraux yi ñu ngi ci bataay bu metti gis également euh, climat bi nga xam ne xaw na apaisé wu ci diggante maître Abdoulaye Wade ak président Macky Sall. waaw jërëjëf encore di leen nuyu di nuyu souvent en fait j'ai un problème ak front bi am problème aussi ak Ablaye Wade. Mhm. front bi pourquoi parce que je crois que front force bu mel noonu front résistance nationale ak parti politique yu toll noonu mouvement yu toll noonu association yu toll noonu société civile bu toll noonu normalement li ma doon xaar si ñoom ñoo waroon jël en charge yenn bataille te je pense que actuellement surtout période yi passé yëpp li ñu gën a dégg mooy société civile ay activistes di jël seen risque ñu leen di jàpp ainsi de suite population yi sentiruñu bu baax dëgg-dëgg implication homme politique yi comme ni ñu ko daan defee di jëlaan en des les questions d'ordre social parce que bu ñu fàttee nii soo créé parti politique non seulement da nga am mission encadrer ay militants former leen proposer ay candidats à des élections mais aussi da nga war a nekk une force de proposition et une force de critique yooyu bu manqué mu continuer di manqué yow sa dox day sooxee te loolu non seulement remarqué na ci parti politique yi individuellement mais aussi au niveau des instances front bu mel ni front bi front bi boobu mooy sama premier problème deuxième problème avec Ablaye Wade eh bien maître Ablaye li mu posé noonu communiqué boobu nga gis man je l'ai vu hier comme ñëpp dans les rédactions mm. opération communication la tout simplement c'est une opération de communication avec ñaari objectif possibles bu jëkk bi mu ngi bëgg a wane ni moom soit soit jubóogul ak Macky Sall mooy mm-hmm. première hypothèse ak Macky parce que moom moo moo doon waxtaane Ablaye ak Macky Sall mm-hmm. euh, ni fang na buul depuis Massalikul Jinaan et cetera ba dem pale audience et tout ça bu ñuy wax attitude bu suspecte Ablaye Wade la depuis Conakry ba mu demee dem seeti eh, Alpha Condé dégg nga du ma dugg ci détails yi am naa xam naa ci lu bëri bi mu ñibbisee Abdoulaye Wade dafa am attitude ambiguë yaa ngi dégg donc moom attitude suspecte bi moom la donc mu ngi bëgg a wax ni moom mu ngi ci opposition radical maanaam bon képp sax kuy wax ak Macky Sall far man samay say affaire et eh, pourtant moom mu ngi daan wax ak Macky Sall te rien ne nous dit que jusqu'à présent continué wul di wax ak Macky Sall loolu mooy la première hypothèse mu bëgg a démontrer ni moom mu ngi ci opposition radicale euh, fa mu taxawoon jegu fa diilul ak Macky Sall deuxième hypothèse mën naa am Ablaye Wade day mu ngi waxtaan ak Macky Sall ça c'est mais ci biir soit directement soit indirectement mais ci biir waxtaan yi li ñu li ñu li ñu nas ñoom bëgguñu ko xam ñuy lëmasal nit ñi. parce que Macky Sall def na ko ñaari magistrats yi demoon fële euh, Nations Unies comité des droits de l'homme mm. ba ñu tuddee Karim rek dàq nañ leen. bu wooyee mm-hmm. attitude boobu ci la Macky ci la Ablaye Wade nekk pratiquement. dañuy sërëmal ñun ñëpp pour orienter suñu analyse ci kaw wane ni ñoom euh, PDS moom Ablaye Wade moom dafa radical non non c'est pas ça. Mm-hmm. à mon avis l'esprit Massalikul Jinaan mu ngi fi ba léegi. Mm-hmm. parce que quand même am na orma bu ñu dox. la xalif général des mourides seen kilifa la ñoom ñëpp am na lu mu leen wax te lu mu leen wax ñu nga ca amaana nag lañu bëgg fa ñu bëgg a teer bëgguñu ko xam alors <laughs> waa <laughs> tey grand est-ce que euh, dialogue bi ni ñu ko gisee surtout démb li xew est-ce que mënuñu gis ni euh, ay euh, ay concertation la maanaam ay négociation la gën a nuru ko ay discussion jaloo national bi. waaw parce que démb euh, ñi ngi dégg moom Matar Souran mi nga xam te ne moo yoroon kàddu gi wax na ba wax ni sax ni dañuy lancé appel ngir ñu lancé ngir ñu bàyyi Guy Marius ba pare noppi di wax ni euh, li ñu fi indi mooy waxtaane lii ak lii kon mu mel ni jusqu'à présent ñoom si seen bopp sax euh, li leen fa andi dafa mel ni xamuñu ko. xamaguñ ko non il faut que ñoom dans une mm-hmm. phase bu njëkk bi. i faut ñu waxtaan. vous aurez l'occasion de ah, reporter. dina ñëw dina ñëw euh, phase bu njëkk bi il faut ñoom ñu d'accord. ci li ñu war a discuter ensuite ci procédure bi ñu ko waree bi ñu ko waree discuter mm-hmm. loolu ñoom il faut ñu établir que ñoom ñoom ñi toog si biir dialogue bi mm-hmm. euh, pour mën a aboutir à quelque chose donc mm-hmm. ce qu'on appelle les termes de référence dañ ko étudier discuter ko teg ko procédure yi ñu xam nan la ñuy doxale ñoom euh, ça c'est un mais fondamentalement dans le fond ça c'est la procédure la la forme mais dans le fond mais réew mi réew mi vraiment bu amoon bonne foi de part et d'autre surtout de la part ñi toog te de démb ak bërki dem ñu nekkoon ci opposition bi xam nañ ni exactement lépp lu ñu fiy wax rek waxaat la que lépp lu luñ fi waxtaane waxtaane waat la lu luñ fi décidé ñaare décidé waat la parce que en réalité réew mi consensus yi def nañ ko am na fi ay nationale nationales CNRI yi Amadou Matambo liggéey nañ ba sonn teg dafa déposé nañ seen i conclusion instance yu bëri déposé nañ seen i conclusion Macky Sall yoonam nekkul si ay ay conclusion gars yi xam nga moom li ko moom itam dafa am agenda comme Abdoulaye Wade ni ma mayee agenda moom parce que foofu laa jëmoon Abdoulaye dafa am agenda tamit am agenda agenda boobu réalisation agenda boobu moo ko intéressé de. moom laa lay wax nii ma ne la est-ce que mbir yi niroowul gënul niroo ko négociation. parce que déjà gis nañu yeneen 40 personnes yu delloo 41 euh, je crois. discussion boo gis ñu ñëw bokkoon encore ci comité de pilotage bi mu jur démb coow. discussion boo gis day day am ce côté là maanaam da ngay bàyyi benn côté kële bàyyi ngir mën a retrouver sur des points loolu hmm. certainement mooy. Euh, li nga tuddee négociation euh, au niveau commercial noonu lay demee les affaires mais en politique c'est pas loin de ça ku si nekk également tu as des intérêts di ko préserver et cetera et cetera donc da ngay bàyyi lenn jàpp kële bàyyi ngeen mën a àgg à des compromis mais parfois malheureusement dañuy agsi ci ay euh, malheureusement parfois à des compromissions mais bu ñu bu ñu xoolee euh, dialogue bi Macky nee na lépp lu ñu fa jëlee Eh, dina ko dina ko dina ko mais nag après nag mu jël ay nit nag ba dax leen renforcer leen ah là y un problème est-ce que y a pas un piège foofu pour que mu orienter majorité ba wala di orienter consensus et pour que lañ fay jëlee man ko arranger parce que Macky kat ku appliqué wul commission de droits de l'homme Nations Unies loo wax CEDEAO appliqué wul lu ñu wax euh, référendum nga xam ni référendum populaire c'est obligatoire appliqué wul sax genn wàll gi euh, appliqué wul commission euh, terre bi Souran Moustapha Souran dirigé woon mm-hmm. waaw moom yooyu yëpp tey nag xëy na mu fii mu pour la première fois ñu ab instance décidée intégral mu appliqué ko comme ni mu ko ni mu ko promettre mm-hmm. mais bu leen bu leen bu leen solee un certain nombre de personnalités sans que ñu xam selon quels critères ak à quelle fin su demee ba si biir mën na nekk un piège parce que dañuy orienté majorité ba parce que mën nañ ko orienté. comme, comme... Voilà, voilà muy ab mu indi loo xam ne ñoom ñooy ñooy yore seeni i consensus dañ naan soit ñu am consensus sur ce point wala ñu am majorité qualifiée mais majorité bi bu fekkee ñoom seen i nit a fa ne évidemment la majorité day facile loolu mooy peut-être le souci à ce niveau là. Euh, man euh, Assane damay waat ci li nga wax sànq relation Abdoulaye Wade ak euh, Macky Sall ndax tey ji papa ak doom bu dajoewaat saafonte mën na dina tax ñoom ñaar ñu bokk seen gis-gis ci wàllu politique. non ñoom. ku si si ñoom. comme c'est forcé. non non mën doom doxaat. mais ça ne veut pas dañoo war a par force tamit bokk gis-gis ci wàllu politique. ah li nga bëgg a wax mooy retrouvailles yooyu. Mhm. tekkiwul alliance politique. waaw loolu nga bëgg a wax. eh bien amul woon implication politique retrouvailles yi intéressé wu ko parce que ce qui l'intéresse mhm. mooy nan lay réhabiliter son fils. Mhm. nan lay repositionner son partie dem dimension yooyu moo ko intéressé si retrouvailles ya parce que Macky bul fàtte ni contentieux Ablaye Wade yëpp c'est politique c'est pas personnel c'est pas un problème de Marième Faye Viviane Wade non c'est un problème politique qui la moom moo leen opposé démarche yi nga xam ne yi def na ko dafa jël stratégie Ablaye Wade dak ka delloo en neutralisant son parti faible affaiblir ko wàcce ko dax candidat bi tëj ko exiler ko ainsi de suite sa c'est des méthodes très très très wadis à l'époque gars yi ñu bëri temps yi commissaire Assane Ndoye yéen a ngi fàttali ko ah, gars yi amul presque ku jaarul front Siggil Sénégal ah. mm-hmm. ku jaarul dik bëriwul de gars yi sont défilés à la à la dik tout ça parce que ay stratégie la de neutralisation de l'adversaire mm-hmm. donc stratégie yooyu moom la Macky Sall utilisé jusqu'ici donc bu ma Ablaye Wade accepté dialoguer accepté dem pale ba ni fang accepté communiqué teg na tànkam fu wóor lu ko may mu mu taxaw noonu tey nag lii muy bluffé nii naan front mais mais front euh, mais le PDS ana communiqué depuis quand ngeen gëj a gis ay communiqué PDS ay activités ay réunion du comité directeur depuis quand ngeen gëj a dégg Karim Wade euh, comme ni mu daan def ci réseaux sociaux yi wala daan recevoir nos audience telle personne ñoom ñëpp ñu ngi ni nemm nemm googu nag daa am ci lu ñu ne lu ñu sex mag bu sexee du wax léegi nag li ñuy def nii c'est juste pour l'opinion c'est c'est juste pour l'opinion alors euh, am na ñu wax ni jaloog bu PDS bokkul Pastef bokk ci euh, dialogue boobu gëddaam des na mais man damay laaj est-ce que tey c'est une bonne stratégie PDS ak Pastef bañ a bokk ci dialogue bi non man yaakaaruma ni c'est une bonne stratégie effectivement parce que seen préoccupation ñoom ñooñu nga lim yëpp mooy aussi bien Pastef que PDS seen seen problème majeur mooy le fichier électoral ak transparence des élections parce que ñun élections yi lañ ci tey suñu xel man xaw ma ku fraude ku fraude xaw ma si dara xaw ma si ay preuves et cetera mais c'est un problème parce que à deux reprises de tenor régime bi taxaw nañ joxe chiffres te kenn laaju leen am na ku ñëw si plateau mu ni mu ni cinquante huit pour cent daal ni daal ni présentateur bi na jàpp nag li ma la wax waaw ku ko laaj keneen ñëw mel ni ku jëfuur euh, joon na ñetteelu chiffre bi chiffre bi ñëwaat ca commission ba waaw ñun on a un problème par rapport a ça c'est-à-dire que vraiment képp ku ni euh, manipulation ay fraude mënatul am da ngay nelaw mhm. lu mën a am la gis nga électronique bi mu commencé ci élection yi ba léegi